am na lu bëri loo xamante ne ŋàññoon nga ko fi nga nekkoon nga dugg ci politique mais moment bi dañu gis politique boo xamante ne politique bu doy waar ŋàññante waxante xaxarante désinformation sax mi ngi ci biir chacun cherche à gagner cette guerre là de de l'opinion euh, bu fekkoon ne dellu siwaatoon amaat na di nga di nga simi sa casquette homme politique <laughs> waaw gis nga laaj boobu chaque fois dañ ma koy laaj Adja bi tey te lu am solo la yàlla xam na ni ñun décision bi ñu jël nii. ci tënk dama koy tënk dañ ciy sant yàlla gis nga lii nii ñu ngi woon Tamba. avec euh, de Camara mi fa nekkoon suñu représentant ñu gën a dem gën a xam sénégalais yi. Mhm. gis nga tournée yi amul lu ko gën a metti Adja bi tey tournée yi dem def ay tournée amul lu ko gën a metti surtout si les moyens yi ngay defee politique da nga koy limiter au strict minimum. c'est extrêmement difficile mais gis nga politique ku ko jàppee jaamu yàlla man dama ciy sant yàlla ci ni et loolu dama bëgg nit ñi jàpp loolu. mooy très rapide. amuñu politique am na ku waxoon ni waa yéen seen leader bi tojul fenn gañewul dara ma ne sant na yàlla sant nañu yàlla. Euh, vous pouvez retourner à mon premier discours ba tey ñun defuñu ay politique spectacle defuñu ay populisme mënoon nañ ko de. mënoon nañ ko de mais man sama conscience niñ ma yaree ak valeur yi ma am moom laa bëgg dugal ci politique su ma amee sant yàlla parce que c'est pour servir suñu amul ñu sant yàlla parce que moment bi suñu réew bi mu ñu soxlaa taxaw nañu jéem d'accord yaa ngi gis donc euh, Adja bi tey euh, réew lu ci ëpp solo mooy nga taxaw nga jéem te nga bañ a aussi perdre sa identité man politique jaralu ma wax lu dul dëgg sama yaay maa ngi lay fàttali lu mu ñu wax lu dugg suñu kii goo nga weli àlla dëgg neex yàlla loolu amul fu may toog ci sama liggéey ci sama lépp dëgg mooy mooy moom mooy priorité donc man yenn yi mënuma ko def ci politique dama am lu ma ci mën ak lu ma ci mënul lu ma jaral ak lu ma jaralul yaa ngi yaa ngi yaa ngi gis lu ma ci parce que tii titre bu ma mën a am ci politique ban bu gën a mag bi lan la président de la république feesul samay bët su dul lu muy njëriñ lu ma mën njëriñ su ma ko nekkee du fonction bi man moo ma intéressé donc euh, ci wutin bi mhm. ci amin bi ci yorin ba nit ki ni muy bàyyee na ànd ak dëgg ànd ak intérêt réew mi mhm. ànd ak ngor euh, wax dëgg yàlla ñu ànd ak suñu sago aussi suñu voilà. sago ba politique ba politique du ñu waaw ñun dañoo ñëw pour changé politique waruñu nangu politique changé ñu te man loolu maa ngi ciy sant yàlla parce que ba tey nii képp ku ma seetaan dama na ah mbaar mu ne ah yow kay tu es resté le même ma ne alhamdulilah j'ai la victoire morale buy la première victoire convaté en politique am nañ ko ñu ngi sant yàlla te yàlla su tuddee nii da ngay am quelque que soient les circonstances da ngay am parce que ñun moom la ñu gëm moom la ñu yaakaar moom